fa foo nekkee ñu ngi fa. dëgg la waaw dëgg la waaw. nga sa ginnaaw daal si côté yëpp kii kii. ñu lay doon suñu mbéy mi quoi. ah sama maaw Mario waaw sama maaw. ñu def lu dul kontaan si ndax Cheikh Ba c'est un fils digne de la Médina li ko war rek la def c'est un de la Médina ndombal tànk yeeg yeneen ak yeneen personnalité bi muy occupé ci réew mi ci àdduna loolu leneen la bu xasee ba génn bureau wala mu xas ba génn këram dugg biir Médina rek xoolatuñu ministre wala personnalité bi mu nekk booy Médina la ñuy gis donc booy Médina moo fi ñëw tey wàcc ñëw seet si ay doomam ay jarbaatam ay frère am ñëw toogandoo ñoom naanandoo ñoom kafe dëgg la ñu ngi ci période Covid pandémie mais n'empêche mën na nañu respecter li nga xam ne mesures sanitaires yi la mais ñu ñëw doxantu xool jeunes yi def comme tey lii Cheikh Ba def nii dafay rafet parce que jeune yu mel ni man ñu ngi ci biir Médina di entreprendre mais bu ñu ñëwoon toog waxtaan ak ñun comme ni nga xam ne Cheikh Ahmed Tidiane Ba tey moom la def waxtaan ak ñun ci xel wàcce boppam. ne ñu lan mooy but bi lan mooy objectif bi ñu wax ak moom mais na ko yenn autorités yi def bu ñu ko defee léegi Médina avancé nekk une ville boo xam ni ce une ville boo xam ni référence lay doon lu ñu soxla mooy ku ñu jege te moom jege nañu ah di ñaan tamit li nga xam ni moom la bébét am yéene ci Médina yàlla na ko yàlla teg ci loxoom di jaay Seydina Muhammad Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam Thank you.